allo. noo def. maa ngi nii rek. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ah mbokk yi nga xam ni yéen a ñu suivre ci people 221 ginnaaw bi ñu leen nuyoo di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun tey nag dañu invité sunu benn maman kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di Coura Macky Ronald ah, honorable ñu am mbégte dalal la fii sunu kër d'après sa voyage bi nga xam ne defoon nga ko dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. ak ah, xanaa di nuyu Sénégal gépp di ñaan ci réew mi yàlla yokk ci jàmm di ñaanal kilifa diine yeeg yu aada yi yàlla yokk seen fan te ñu fekk ñu nit di ñaanal njiitu réew mi son excellence président Macky Sall di ko ñaanal di ko wax yan wi diis na lool waaye yàlla du ko yan ku ko attanul di ko wax ni ko mu góorgóorlu Mhm. ñun ñu ngi gis ñu baax ñi ñu ngi gis li muy def mhm. te kuy def lu baax dafa bëgg a dégg waa góor mhm. te wax dëgg yàlla waa góor président Macky Sall tey ma nga ca kees di rëkk di wax ci réew mi di wone ci réew mi lu baax li mu def te xam naa ni nag borom xel yi ak ñi yàlla baaxal li may wax xam nañ ko Sénégal yàlla na am jàmm d'accord maman bala maa na am jàmm maman bala maa ñëw ci ci li Macky Sall def. Euh, fan yee mhm. am benn nemeeku tour bu fi amoon xam naa fekkoon na la nga voyage mu di mitin mhm. bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko Kër Massar. indi woon mhm. coow lu bari mbooloo mu bari tamit génnoon ci naka nga jàngatee meeting boobu. danga may wax tàggatoo tour. non meeting la. tàggatoo tour bi moo finalisé ba teeree ci meeting. gis nga Sénégal nañu nangu dëgg. Mhm. Sénégal ñu ngi ci fitna boo xam ni musuñu ko dund. Mhm. Sénégal mi ngi ci ci lumu xamut. Mhm. réew du ay kàcc ak nar ak violé ak réewande moo koy jël. gis nga mitinu Sonko boobu lan laa ci dama ci jàngat. Sénégal dafa war a jóg taxaw dama ci jàngat peuple Sénégal mhm. ñu fàtte tuuti politique ñu gëstu suñu réew mi fan mhm. lay war a mujj mhm. ndax xale yi di ñëw ëllëg moo tax ñun dañuy dox rek mais xoola danoo dee suñu xol yi dee na li ñu dégg rey na suñu xol yi loo mu suñu ko dégg loo dégg mooy xale yi génn leen ngeen joxe seen bakkan ñu ne lu tax sénégalais bu jóg ci couvre-feu yor ñaari jabar dem fekki xale bu am dix neuf ans dix huit ans mu jiiñ la viol nga rey quatorze xale doyul toogoo xool yàlla ni man lii may def lu tax ma koy def di rey doomu jàmbur yi lii musul am Sénégal nga delluwaat taxawaat ni génnaat leen ngeen rayaat seen bopp te say doom nekk ci sa biir kër te yow génnoo lacrymogène lañ la door nga daw Sénégal yëpp teg ci seen bët mhm. nga rey doomu jàmbur yi Sénégal wake Sénégal nañu xool sunu njaboot yi ñëw ëllëg mhm. bugguñ nekk ci xale yi di yor pistolet yi <laughs> xool leen Afrique li fa xew ñun amuñu bugguñu loolu mhm. bu ñu benn nit jaral suñu réew tàkk uh-huh. suma ma déggee ñu naan réew mi day tàkk des fois damay jooy man kenn man bu may jooy dama mel ni góoraan ah, damay làqatu des fois uh-huh. damay nëbbatu uh-huh. parce que dama bëri ngor am na yu ñuy def Sénégal ji di ko wax surtout yéen ñii di jottali xibaar yi bàyyi leen xel ci Sénégal benn nit mi ngi ruube Sénégal lu fi musta am ñun mm-hmm. bu ñu pauvre it lekk ñu kaña lekk ñu lekk ñu jaan mm-hmm. lekk ñu bar ñu ngi dundee li ñu sunu lislaam sant di sant yàlla mm-hmm. di dundee lu kenn dundeewul ci àddina mooy ma fëgg la léegi wala ma wola téléphone nga may ma lu ma añee amu benn réew Amérique laa dëkk for twenty eight years février bii passé bi nii la cinq bii nii laa def vingt huit ans Amérique mhm. sama dëkkandoor yi xamante wuñu Sénégal bi kee ful bu mhm. ñu topp benn nit mu taal suñu réew mais naka nga gisee mbooloo mi nga xam ne keroog keroog wuy si nañ ko Kër Massar parce que euh, loolu kenn mësu koo gis ci mitin xam nga man bu may wax may wax te sunu borom bi tax mhm. man sénégalais yi kenn <laughs> jàppalewu ma man lu ñëw ci man yàlla mm-hmm. seen fekk man yi ñuy dajale mm-hmm. di fay xale yi mm-hmm. nee naa la xale bu ne cinquante mille juróomi junni état du def loolu ku nekk cinquante mille juróomi junni pour nga ñëw ci mitinu Ousmane Sonko ñen ñoo ko créé ña nekk bitim réew bandi cerveau yi bëgg Sénégal tàkk jippe ñun ah, eh nag lool nag loolu nag am na ñu may message ni ma waa APR ñoo ko njëkkee. APR Sonko dafa taxaw mu leeral Sénégalais yi mu ne leen. Mhm. waa APR dañu ragal damay yëngal ñu dugg ci seen suufu lal. Mhm. di ñu saaga ndey. Mhm. di ñu ji caga. ku mi. ku fi baax woon la téléphone menacé la. ñun nag ñu jékki-jékki ne pour leen fayu. Sénégal ni aha APR waa Benno waa APR ñun da nga mës a gis kenn ku nekk APR ku saaga kilifa diina wala bu aada ci réew mi ñun ñoom ñii saaga kilifa diina yeeg aada yi ci réew mi ñun ñooñu la ñuy saaganteel surtout man ñii ñu wax kuréel ma ci Sonko deful lu dul yëngal réew mi. kon nag te réew mi di ko dooleel ña nga réew yi ñii nekk ci réew mi di daan seen doole. na leen jaral ba réew mi du tàkk. kon da jàpp ni mbooloo mi ko wuy si woon keroog dañ leen a fay. ma ni dañ leen a fay ba fayaatoo leen. Mhm. ak seetaan xam nga sénégalais su ma rëkkoon léegi fii fees del. Mhm. su ma rëkkoon kura maki léegi rëkk. Mhm. wala may dugg sama oto yor sama micro léegi. ma ni cité mbakk yu fay fees del. nit ñi génn. sénégalais day seetaan. waaye la ca xol ba nag. bul ko xam. d' accord naka nga gisee mooy yi nga xamante ne yëkkati na ko foofu mën naa ci cité jàkkaarloo gatsa gatsa ak xale yi nañu résister pour jàkkaarloo kii di président Macky Sall. Ousmane Sonko gatsa gatsa boobu mu wax dañ ci yegg. Mm-hmm. mooy mm-hmm. <laughs> mm-hmm. bi muy wax. weesuwul Sénégal ba mu daj. Mm-hmm. Ousmane Sonko la ñu njëkk a jël ci kuy politique yóbbu ko chambre yi chambre criminelle yi da ko xam booy. non oh, non ñaanoo yàlla yàlla teg la fa yow. Mm-hmm. mooy juge bi gën a mujj. Mm-hmm. dañu koy ñuus ñu moromam. réew mi dafa am loi. yow yow yow li li li Ousmane Sonko def yow boo ko defoon yaa ngi nu mu seen yàgg na. mais dafa laaj réew mi dafa am koy jaarale. Mhm. wan ko réew mi naka la mel. Mhm. amul ku mu yëngalul. Mhm. amul ku ne ci Macky Sall. mani ku Ousmane Sonko waxul lu lu bon jiñ la sàcc. te bu ñu ko waxee Sénégal ni Sonko lu tax ñu wax ko. Bouba Ndour dinaa ko dinaa ko wax ma si ba. Bouba Ndour dëgguwul. man Youssou Ndour laa naw nawuma Bouba Ndour. Bouba Ndour bu duloon Youssou Ndour. golo lañ koy def yóbbu ko an takk ko. Mhm. dafa tapet that nigga is a chicken. buuba Ndour man ba ma xamee buuba xam nga kan moo yor buuba Spike Lee bi film. Mhm. buuba is a real nigga moom warul nekk chicken warul nekk ginaar ragal di loxo. Ah, mais na ma woo. bu Sonko yëngalee. Mhm. na ma buuba woo ma taxaw te FM man kenn. da jàpp ni dañu menacé Bouba Ndour moo tax mu jënd galaas. mais yow waa waa yow waa Pastef fenn la ñu bu dul TFM. Mhm. ndax sama mag de Youssou Ndour moo am jëmmi bu duloon Youssou Ndour Bouba nekk golo laa la wax kenn nangu ko. d'accord kenn bëggu ko. moom nee na li def moom daf ko def. Mhm. ci corniche bi. Mhm. waroon naa rus Zeyna ak Pape Philippe. mi nga xam ne maa ko ko a gis dama xam Bouba gis ma Pape Philippe maa ko gis buuba. Hmm. Viviane Ndour ba mu amee Pape Philippe maa njëkk a yem ci moom ba mu hmm. xippee man la njëkk a gis. Hmm. ok kon xam naa famille boobu dégg Buuba Ndour. dafa bor a bàyyi bon gi mu nekkee. fitnaal waa tey FM fitnaal képp ku ne yor xaalis réew ci digg dëkk bi te du dara ñun yusu la ñu naw. ñun yusu la bëgg. ñun yusu la xam buuba ni nga set dafa kaawut. waroo toog foofu rakk Youssou Ndour nga waroo toog foofu di wax ah doo hmm. dara li ngay wax du benn dëgg da ragal. xam nga ni Sonko cukuru na aji waat ko man yow moo nekk ci aji saar na joxe tuflitam yow. d' accord d' ci ragal ci ragal ci ragal boobu laay ñëw ci. démb sax du mitin doxantu boo xam ne Ousmane Sonko def na ko fii di parcelle. Mhm. jàkkaarloo kii di Amadou Ba di ci yëkkati ay mooni Amadou Ba ragal la amul fit. <laughs> te aussi bu nekkoon dañ koy topp ci yoon kon euh, heure bi nii waxatuñ ko parce que ci ay milliards la tëdd nag nga jàngatee loolu. waaw. borom xel nga. Mhm. dama jël léegi sama àddina dootuma wax ak ku dul xel journaliste bi fi ñëw te amoo xel get the hell out my house. Mhm. ok. man man man damay wax ak borom xel. Mm-hmm. parce que xel laay waxee. Mm-hmm. Amadou Ba ba ba ñuy dugg ci biir suuf yàlla daf ko def nit ku gën. Mm-hmm. gis nga Sonko Sénégal gépp nañ waxante dëgg dañ doon xaar mu laal Amadou Ba. Amadou Ba dafa dimbali Sonko. Amadou Ba bés bu waxee la ko dem gémmiñ. ah wax dafa xew. Sonko amadu Ba daf ko dimbali. ci nan. ci lu ne. Mhm. moom la doon liggéeyal ci lu ne. Mhm. moo takki Aana. ba muy takk Aana Amadou Ba la yónnee. Mhm. Sonko du nitu dara golo la buy gololoo sénégalais caga bu en xola boo xamante ne ni sénégalais yëpp xam nañ ni da doon cagatu ñu jàpp ko. bu mu ko sippi doomu aadama yi Amadou Ba du tapet moom moo jeex takk loxo muy gudd mu wax ba yàgg kon su nekk looloo tax euh, Amadou Ba xamante nañu Amadou Ba laa la wax hmm. moo takki ana moom hmm. la Sonko ni ko ñaanali ma ana raa la woon hmm. di attaayal ay tayibu saar raa xoolal mosru mosru Sonko bu sañoon kaa xoolal li daw na ko xam jël réew mi jox ak Casamance indépendance. ñu xeex ñoo. Mm-hmm. ñu xeex ñoo benn réew mi xeex. Mm-hmm. benn réew mi Sonko mm-hmm. is a débol. américain yi dëmm la wax débol Sonko is a débol na Sénégalais yi xam ne néega bi débol la. sama doom yi la bëgg a rey dama jur. Sonko dëmm la. deret bi doyul xam nga accident bi am nu mu amee. dañ ne kilo. ñaata sept kilos. xam nga lu ci toog. kàttal. di bëy ngi jeexal sénégalais yi na sa xel daw sept kilos après nga sàkk. Mm-hmm. boro ay ay wax laa lay ah. mm-hmm. ay ci xel sept kilos après sàkkal. Mm-hmm. sénégalais ngi jeex. ñun dañu gëm. ñun gëm nañ suñu borom bi ñun dañu gëm tuubal naa ñetti nit mhm. xam nga kon gëm naa yàlla mhm. mais dama ni dañu gëm tam fétis ñun africain mhm. du ñëpp nag mais dañ ko gëm jël nguur daf leen jaral lu ne sonko ngi jeexal xale yi génn leen dee est xam nga yow loolu lan la miin yow ba nga sa xarit dee yow ci lii wala sa yow nga dee ci xam nga lan moo ba ngay dee ci mu bàyyi doomam neewul Mouhamed kaay ci pëjëm yay yaay njëkk dee def na ko mhm. pourtant Mouhamed am na mag mhm. nii nit ñi xamut Mouhamed am na rakk mhm. lu tax Sonko tegu leen ñoom ñuy góor ba ci ko am juróomi ak ne sama doom yaa ngi bu jour ba ñii laay jiital lu tax Sonko deful loolu ah dafa bëgg a rey xale yi pour jël réew mi après nothing comme Thomas Sankara mi mu gëm. mais man tamit gis naa ne Burkina après mu réew mais ndaw ñi tamit gis naa ni Sonko woowu leen parce que ñoom ñoo jàpp ni ñoo war a defar seen dëkk moo tax ñu jóg xeexal seen bopp woo dafa am ñu gëmul dara fii dafa am ñoo xam ne dañuy dundoo. Mhm. alina garab la bu mag am ñu nekk ci reen yi am ñu nekk ci garab gi mhm. mooy bant bi mhm. am ñu nekk ci tere yi am ñoo xam ne fiis ay xob laa bu ngelaw yi ñëwee dafa leen di yóbbu. Mm-hmm. noonu mooy àddina il faut nga jàngat lan mooy àddina. Mm-hmm. Sonko dafa ñëw yóbbu jeunesse bi ci dee. Mm-hmm. ñu nekk ci mujjug jamono boo xam ne dee bi dafa gaaw nga joxe sa bakkan léegi ci lu ñàkk fayda day yomb ci loo xamut. xale ya woon xamaguñu yow mii di dund xamagoo lu xew. seen yaay ngi am naqar Sonko na arrêté na ko sénégalais yeeg journaliste yi wax ne ko eh demal nga wuy ji comme ba ngay wuy ji Mame Mbaye Niang nank te kenn yëgut mm. mais Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang da nga leen di wuy ji yaa ko jiñ sàcc ay mm. milliards Bouba Ndour naan nañu bàyyi mais eh Sonko nañu leeral ne Mame Mbaye Niang dafa sàcc ay milliards yow mm-hmm. ñun ñu bëgg a xam milliards yooyu fu mu dëkku mm-hmm. man mi bokk Benno Bokk Yaakaar na ma Sonko leeralal ndax Mame Mbaye Niang dafa sàcc mm-hmm. eh sénégalais yi du ñu bàyyi lii de na leer ay milliards dëkk bi ñu toog ñu toog jàkkaarloo ñu ne nañu ko bàyyi ñu jiñ ko nit après kon oh keneen sàcc ñu ne mu porte plainte am fit ñu ne nañ ko bàyyi loolu la Sénégal di doxee Mame Mbaye Niang dafa proud mu ne na Sonko leeral joxe boppam kon kooku xam na kon kooku wóolu na boppam Sénégal lu tax Sonko fen journaliste yëpp ñu ne Sonko dafa fen ndax taxaw na ni ci ci internet laa ko gisee loo gis ci internet dara du ci dëgg genn wàll gi surtout bind yii mhm. ku ku mu neex di nga bind lu la neex ci man Coura mais doo génnee sa kanam wax lu la neex ci kuromaki ndax kuromaki dina la tontu musiba naaru laay. d'accord. Sénégal nañu arrêté siis. Mhm. Sonko nañ ko wax ñun ñëpp ñu àndandoor ne ko ni yow demal nga régler sa yëf nga bàyyi sunu Sénégal mu nekk ci jàmm ñun yàgg nañu politique mais kaay nga dee bu <laughs> ma Macky Sall waxoon kura Macky kaay nga dem dee léegi maa bañ laa koy wax dama am ay doom. d'accord Euh, mhm. xam naa ni fi mu toll nii da nekk ci yoon pour. Mhm. jëm seen meeting bee nga xam ne mooy Thiès. waaw ma ni woon nag naa la naa la demande lii rek xam naa lii lancement la ci ci ci ci ci coow li. dañuy toog dañuy toog boo jógee Thiès dañuy toog. gën a waxtaan gën a développé lu bari bari. ci kàttanu yàlla. jërëjëf ma kontaan naa yal yàlla defal jàmm te defal ko Sénégal gépp te yal nañu yàlla muccal. allahumma amin lu ko nar a mhm. yal na yàlla suñu borom bi nga xamante ne ni. Mhm. jox nañu yaakaar mooy am nañu sunu kilifa yi nga xamante ni bu ñu waxee ñun ñu dégg mooy kilifa diine yi ak yu aada yi. Mhm. yal nañ fi yàgg. yal na yàlla sang ñu malaanal sutura Sénégal. amiin amiin maman jërëjëf